set bi ki nar ma jéema way ku am ngërëm te way kii way ko war ku mën na way way naa la Mbàkke am nga ndam ma jéema way kii way ko war na ku mën la way way naa la mbàkke am nga ndam bay galas ibnu sëriñ seexa beey bismillaay ma jéema way ku am ngërëm kii woy ko na ku mën la woy woy la Mbàkke am nga ndam bay ngela sooy ibnu sëri see li tax ma jël xalam di woy dama amu cofeel gu te gis nga ay jëf yu ma woy la Mbàkke am nga ndam sëriñ Seex Abinde mooy sa baay nga ko ay jëf yu moom it mu may la may yu ngay def di dindi am nga ndam sëriñ Seex Abdi mooy sa baay nga ko ay jëf yu moom it mu may la may yu ngay def di dilla am nga nam yàlla safar wi mel ni doj defal la wér waay nga yàgg faaj ajoy mbindeef yi bul nu tëj wallaahi ñëpp a ngi gërëm ñëpp a la ci yoonu seex bamba bi taax ba ñëpp feex xam jàmm ak dund bu neex moo tax nga fawqa say moroom bàyyi nga las kim nu sëriñ seex abe seex abdulaat mbakke mooy samaam bàyyi nga soo i jàmbar la bindee fi noo ngi lay gërëm te di la ñaan daam tawil baqaa ubbal noo am sunuy mebaat bi jaayi seydil xadnaan nu sax ci waay baam Máquina de sexta